Bosse ñi ngi ni fekk ci la sa kër yaay. Mhm. ñu bayé nga présenté ñu ko mom ak ñan nga togal ni waaw yasine comme ni ma la ko waxé won rek sank ndaysane bi nga wala jé man la nan dem sama yaay. nga laaja man na dem sama yaay tubaar la macha allah sama yaay laa toogal nii di ajaratu Binta Mbaye euh, tubaar gàll mu doon koo xam comme ni ma la ko waxoon sànq kenn dootu ko présenté ci réew mi ndax macha allah def na fi loo man mii doomam tubaar gàll macha allah maa ngi ci euh, nekk rek ko xool di nga xam ne ca nekk macha allah muy dend mère Amine Ndiaye sunu yaay ju baax ji nga xamante ni allah ñoo dend kër ni moom itam sunu dëkkandoo yu baax ak jeena ba jaax ñoom ñëpp macha allah mère Touré waa kon bi ñëpp baax daal comme ni ma la ko waxee rek ni la fi laa defee la tudd sama jabaru mag la macha allah chéri Babacar tubaarkàlla macha allah mbokkum ndeyum bàcc ak maa Abdou Ngom. nga jox sa yaay. Mhm. yaay booy eh, tubaarkàlla dañ lay laaj loo xam ci man ak ak aar bi nu mu demee ndeysaan mbay. ndeysaan salaamaaleykum xale yi. Mhm. kontaan naa ci seet ñëw sama xol sedd na mboose bu ngeen ma laajee ci moom dana am lu ma ci xam te li ma ko jur taxut maa ko jur ci farata Yàlla ak waaye Muhammad waaye tubaarkàlla kalla yal na yéex waaye bu ma fi jógee woon itam du ma du ma niil ndax tubaarkàlla bi may def lii muy def tubaarkàlla di di dem fu di ànd ak Babou tubaarkal nekk ci publicité bi nekk ci laabaan yi nekk ci sabar yi nekk ci ngénte yi géew bi ma toogee nag ba toog tubaarkal laaw la ca jëlee ngay jox ko asaarul moom magam mareetu ko tubaarkal la kenn ku ci ne foo jàkkaarloog sa nawle rek dama daan def sama samay nawle ñu def ko yow tubaarkal la boole koog nag nekk nañ ci ba ni ma ni ma toog oo ma cee kenn xaar ma yàlla ku ma ci ma sa bokkal métier bokk yow géew noo bokku ndey noo bokk baay noo bokk lépp mom la koy fuma ma toll dama ko dañ ñi nga bokal ñi nga bokkal bi boko ko ci dajal yena bok ndey yéen a waaw ma di len sante di len gërëm lan nga ñu mëna wax tay ci sa dom Mbose xana mu bëgg wajurum bëgg wajurum lu mu am bok ak man tay it xex xeex mësuta fi ci ëtt bi Mustu, musuma wax lu ma naqari mësuta yëkkati sama ci du jëf lu am nak bok na ak man bëkk demb rek la ma wàccal télé bi ci biir ak yeneen ak yeneen ak yi ci biir armoire bi tabaski gu jot korite gu jot tubaarkàlla laaw la cet feet gu jot feet de mer bu jot guddi gu jot ma ma reere ginaar mook ay mook ay càmmiñam guddi gu jot ma reere ginaar mook i càmmiñam tubaarkàlla tubaarkàlla saa yu ma fëggee ma ubbi mu jox ma ginaar boole ko ki fruit ak boisson tubaarkàlla ni lekku ma te sañoo ma duma ma lekk lu naqari moo ki càmmiñam moo ki càmmiñam bàcc mi di taaw nga xam ne mooy jëkk ci kër gi nag moo leen yar ci loolu moo leen yar ci ngor moo leen yar ci bëgg ndey mosuñoo yëkkati sama siddu tug jo mosuma tax a xul ak samay samay dëkkandoo mosuma am ak kenn xaar ma yàlla ndax sama njaboot te moo ci raw mooy samam caat nag tubaarkal la donc mooy sama caat caat na xaritu yaayam ma nekk sama dëkkandoo yi nga xam ne dootu nuy dëkkandoo nee naa leen man au mooy dëkkandoo ay bokk am muy ajartu am soxna ami njaay mii di jaay na ba jaaxal sama taw bi di amé mbay sama goro bi nga xam ne ñëpp nee nañ mooy sama Baay Faal jëkkëram laa mujj boot ci góor la li dal moy li nga xamni mo moo am. Bossé sa yaay mi ngi wax légui ni que milieu bi mu rafet yaag say mbokk kat mhm. mais milieu taasu bi liggéeyante bi bëri na ci dem bo sé naa lool de. Yaasin Yaasin. <laughs> ay ca yasin ah. ah tubaarkàlla ah milieu bi day dégg naa dégg naa dégg naa ko waaye man nag li tax tubaarkàlla macha allah wax dëgg yàlla mënuma cee sori maa ngi sama ruq en tout cas taas ko yëpp la amal jàmm tubaarkàlla macha allah artistes yi góor ñi ak jigéen ñëpp la jàmm ndax ñun ñu ngi def suñu benn association boo xamante ni taas ko la ndeel a xalaas moo ko jiite macha allah eh, magam ju baax ja ndey jaara moo ko yoroon yàlla na xippee àjjana wax dëgg yàlla ba tey ji ñoom Binta Diouf mu Serigne Falloo ngi ci la macha allah mu doon association boo xam dafa am doole bari ki dem rek la ñu wuju woon aji jaara kon man euh, lii taasu ko di liggéeyante ah egseeguñ te ci man bu ñu yegsi ci man. Mm. d'accord léegi ani ani ani kii a ngi nii Abdou Ngom moom laa la doon wax sànq moo la moo tax ma ne la sunu kër ah, tubaarkàlla tabale yaa ngi fi eh, xiin yaa ngi fi sabar yaa ngi fi woykat yaa ngi fecckat yaa ngi fi taasukat yaa ngi tubaarkàlla yaasin damala la bëggoon laale ci tabale ji lay mu jëlee moo mi na laa si nit buur yàlla ngéej dalli leen ca kanam yonen laay wax sëy lambi laay wax xaatimu lambi yaay laay wax xayru xalqu laay laay wax ngañ di yaakaari jaam ñi Mouhamadou lañ koy wooye bun Abdalaay Abdalaay Abdal Muttalib Hachim Abdal Manaaf Xusey Kilaab Muratakaab luway xaalifir Malik nadar kanaana tàqu sey mata mudirikata Ilias Nijar maat addinaana dama ni yonen boo xamulee sama yonen danga koy laaj gaay ya demoon bayti laayel dangay sell lool ndeysaan maandu lool jaar ci yoon wu sew gis fa néeg bu rëy foofee la yonen bi sangu bayti aram laay ne laa ilaha illallah muhammada rasulallah laa ilaha laa ilaha sunu yonen ngan gi mbindeefo yi la la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha Seydina Muhammad ku yàlla bind moo tax Seydina Muhammad bu dul woon ak yow jaam ñi nax saa yi Mamadou Lamine Mamadou Lamine Seydina Mohamed Moustapha la nu koy woole Seydina Mohamed boo demee Makka moom ngay seen sooy génn Makka moom ngay seen ajaratu Minta Mbaay demuloo Makka wa yaa bëgg yoneen yaa doyloo yoneen laa ilaaha illallaah laa ilaaha nu koy laata gëm jàmbu nañu koy at yàlla fal ko lu mu songu daan ko noon yi a tuub looloo waral jiyaar ni wàccug na bi ci àddina ñëpp jóg na saba arasak kursi yu malaykatu firdawsi naar yëpp bokk xas nii alal nanu ko jaamoo yàlla buur bu fay nu gërëm nu muy bénéfice eh li dama ne xoolal maa bëgg fàllu ku ko ci waxaat di nga fekkee déewé maa waaw maa bëgg fàllu maa bëgg fàllu Binta yaa bëgg Fallou yaa doyloo Fallou juróom-ñeenti Serigne Fallou juróom-ñaari Serigne Fallou Serigne Fallou benn yoon Serigne Fallou ñaari yoon Serigne Fallou a bëgg Fallou yéen a bëgg Fallou waa Géejawaay waa marché bu bees yéen lay tiitaroo lu ma am fii lay ñaaj lu ma dikk fii lay ñaaj ana waa amoo siis lay tiitaroo ana waa Géejawaay ana waa Baxdaad yéen lay tiitaloo ana meer njaaya taalibey faallo ana meer njuufa taalibey faallo